أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي فضل شهر رمضان على سائر السحور وجعله موسما للمنافسة في الخيرات والتجارة التي لن تبورا وأشهد أن لا إله إلا الله هو الرحمن الرحيم الذي خص شهر رمضان بإنزال القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان ونشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين Ikhwatal iman assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ginnaaw loolu mbokk yi ñu ngi àndaat ak yéen ci téere yàlla bi subhanahu wa taala toll ba tey ci suratul baqara di tàmbalee tey aaya 231 aaya bi nekk sunu kanam maanaa yi mu ëmb mooy leeral attey fase ak attey simmiku ci sëy ak attey delloo ñetti atte yi sëy ak fase ak simmiku ak delloo ak fase ñetti ay ñetti maanaa yi moom lañu sunu borom subhanahu wa taala di sant ñun jaamam yi képp koo xam ne nangu nga ne yàlla mooy sa borom gëm nga ko atte yi tegu na ci sa kaw sunu borom subhanahu wa taala muy sant jaamam yu góor yi way gëm yàlla yu góor yi kenn ci ñoom su fekkee dafa fase soxnaam ba idda gi di waaj a jeex bu ko neexee mu delloowaat ndaw si su bàyyee ba idda bi jeex mu bëggaat ko fokk takk amaat kon ñaari àtte yu ñoo ci nekk bu fekkee danga ko fase muy jël idda idda gi jeexul mën nga kaa delloo waaye bindal ci sag bloc-notes yaa ngi moom ak moom yëpp ak yow ku nekk ci yéen jàpp ne sama borom kër bii fase na ma benn yoon sama soxna si fase naa ko benn yoon mën nga kaa delloo te takk du amaat joxe can loolu la ñuy wax joxe can du amaat takk du amaat waaye boo bàyyee ba mu jeex bay dafa jeex takk nga bëggaat diine lim la ci sant mooy joxewaat can takkaat waaye sax loolu tamit ci joxewaat can ak takkaat ak delloo yépp tamit nañu bàyyi xel ne am na sart yu ci borom bi subhaanahu wa taala gàll sart yooyu mooy lan ngalawaay yow waa ji sa soxna si bëggaan nga ko idam jeexul jëlaat nga ko waaye nga la waay téye ko waay nga la waay téye ko ak sa ñaari loxo ci loo koy téye yàlla na ci njëkk qaala ahlul ilmi inna min al imsaaki bil maaruf boroom xam-xam yi nee nañ bokk na ci nit ni muy téye soxnaam téye bu rafet bokk na ci su fekkee mënoo ko téye téye bu rafet anna zawji iza lam yajid maa yunfiqu ala zawjatihi yutliquha in lam yutliquha xaraj anil haddil maaruf gis nga su la leeree yow ko góor ne soxna si ngay takk mënoo ko dundal amoo droit di ko takk amoo droit di ko takk ndax danga koy lor moo tax sëy ba ko yàlla yonent bi di orienté ndaw yi lu mu wax bi yonent bi di woon ndaw yi naan leen takk leen soxna lu mu wax man istataa minkum albaata wa man lam yastati fa alayhi bisawm borom xam-xam yi ñuy firi baa lu ñu wax an nikah wa nafaqa mooy sëy loolu la olof yi naan dëkkal ak dëkkoo dëkkal ak dëkkoo soo ko mënulee ci jigéen bul ko takk léeg-léeg nag ci ñun ñu jéng dugg ci ay mbir yoo xam ne ëllëg ak si biir da ngay mere ku la def loon dara fekk yow la fekk yow problème bi yëpp yow la jigéen daal soo ko mënul yor bul dugg ci moom bu la leeree ne buñ ko delloosee tamit nawoon fa woon bul ko delloosi waaye ko mu dem nga muñ ndax delloosi jigéen ci biir néegam dafa am sart yu ci yàlla gàll mooy lan nga téye ko bil maaruf ci njekk lan mooy njekk ñun olof yi buñ ñu wëggoon ñun olof yi bu ñu bëggoon firiloo baatu njekk baatu njekk nan lañ koy firee ci sunu ci sunu làkk ñun njekk mooy lan al maaruf da ngay jàng sax ci alquran yàlla mu ne qawlun maaruf ah xayru min sadaqatin yatbawha azan wax ju neex qawlun maaruf yàlla mu ne sarax la wax ju neex kon almaaruf mooy lépp lu baax lépp lu baax yàlla mu ne luñ ne lu baax la rek noonu nga war a téye sa jabar fa imsaakum bi maaruf lépp lu baax ndaw si moo ci yay ak xeet luñ ne su sariya demee ba ne na mën nga ko fen fen li muy aram boo fenee sa jabar doo am bàkkaar kon lislaam bëgg na la nga dund ak ndaw si ci njekk ba tey ci lislaam lim la sant fa yumsikuha bi maaruf mu ne wal maarufu huwa xusnu asiratiha njekk mooy nga dund ak moom dund bu rafet dund bu rafet lenn saa yu jigéen mën na bañ a am lal mën na bañ am armoire mën na bañ am ay yére waaye mi ngi lekk mi ngi naan yaa ngi ko may jàmm rek xalaatatul yooyu mais léeg-léeg jigéen am armoire lu si bata double li mat la épaisseur darabu waaye du tëdd ci lal bi parce que am na lu ko ciy mat mooy dundul dundul foo gis mi ngi jeex mi ngi misère jëkkër jaa ngi koy naqaral loolu du diine kenn du yor jigéen di ko toroxal kenn du yor jigéen di ko métital moo tax tey association yi juddu ci Sénégal ay yeewu yeewi association féministe yi ay fippu ay nangam ak nangam toroxal jigéen fii mana na na na diine ci pa dañuy tooñ l'islam rek dañuy tooñ l'islam Sénégal sëyu ñu sëyu islam sëyu aada la ñuy sëy ak sëyu tubaab sëyu ñu sëyu islam nañu tooñ l'islam rek lépp lu fi xew ñu interpeller l'islam tooñ nañ ko parce que ku jàpp société Sénégal société islam la ndax nga sa bopp société bi du société islamique ba dara di fi xew ñuy interpeller l'islam naan ñëw leen nag yéenay jullit yi nag te mbir maa ngi nii déet lu ci yoonu jullit yi yoonu lislaam nekk ci kon problème yi nga xam ne mu ngi ci sunu sëy yëpp lan moo ko waral mooy ñàkk dundu lislaam wax naa leen ne lii ñuy jàng nii barki démb ba léegi ci ay àtte sëy ñan ñoo ko moom ñan la yàlla di waxal jullit yi du ñoom la yàlla di waxal jullit yooyu nag bu fekkente ne luwaa yi yàlla di leen ko wax guddeeg bëccëg duñ ko déglu duñ ko jàng duñ ko xamuñu ko seen yoon nekku ci war dañu bàyyi ba weeru koor rek ñu ñëw déglu ko benn yoon dem seen yoon daal di pare teg kaamil yi dugalaat ko ci armoire yi dem seen yoon loi yooyu nan lañ koy dundee atte yooyu fan lañ koy xamee kon bil maaruf na nga ànd ak moom ci lu rafet lépp luñ ne moo rafet dund bu rafet même dund gi sax yàlla bi muy wax ñu dund ak jigéen ñi dafa ne wa aachiruhunna baat bi la indiwaat bil maaruf dund leen ak ñoom ci njekk moo tax yonent bi saa salaam mooy modèle ci wane góor ci biir këram semaine bële passé wax naa leen ne yonent bi ci biir këram jàngale na tey lu kilifa diine dul def ci sunu jamono yonent bi li mu jàngale kilifa diine yi laa wax lenn ci ñoom duñ ko def tey seen biir kër sangoondoo ak sa soxna ah sangoondoo ak sa soxna waxuma sax ki ñun ñii rek kenn ko ci def ñun ñii ku fi sa ku fi sa soxna waxoon bébé kaay ma sangale tey kenn du ndogu kenn du ndogu i yow rek ma yeb yow man ngay sang yonent bi def na ko ànd ak sa soxna di daw entraînement yonent bi def na ko wala def ko te su fekkoon ne benn yoon la sax ñu ne non xëy na benn yoon la woon waaye leen wane du benn yoon du ñaar du ñett puisque première fois bi daf ko raw deuxième fois bi soxna si raw ko kon ça veut dire que kon du benn yoon du ñaar te yooyu yëpp am na charte lan moo tax mu raw kii lan moo tax deuxième fois bi ñu raw mu raw ko parce que deuxième fois bi yonent bi rawee Aïcha fekk Aïcha commencé jël poids parce que mi ngi mag bu njëkk ba xale la woon moo tax mu raw yonent bi kon yàgg nañ koo def reer na ba pare ànd ak soxna si doxantu jël na kuur dëbb ba loxo yi fut jégg ngeen loolu kuur ki jël kuur di dëbb lu muy dëbb suuf lan lay dëbb ay xeer lu muy dëbb kon ça veut dire que li ñuy togg ci kër gi loolu lay soq yont bi dëbb na ba loxo yi fut yont bi fóot na bale na raxas na ñaw na dàllam defaral na bopp daal lay dagg mu defal ko boppam tey ñun ñii ñun ñii kan moo koy def ñun kan xam nga lu tax parce que xamuñu nu ñuy sëyee jànguñu nu ñuy sëyee jàpp nañ ne sëy ñàngal la ñàngal kanam arsale yuuxu wan na yow yaay kilifa ci kër gi génn dënn di bonde waaw dafa nga ne loolu rek moom mooy sëy moo tax lan lañ gis ci kër yi mooy fitna kese kese kese moo nekk ci kër yi te sëy li ñu waxoon sànq mooy rëy amu ci rëy rëy looy rëy looy ngand ngandul koo koy jaay ki ngay jaay ngand ngandul bu guddee ko nga futteeku ci sa karam bu guddee mu futteeku ci sa karam ana ngand ngandul bi ah kon kay yéen ñaar ñi kenn ci yéen warul rëy ci moroomam bu ngeen xamee sëy benn waaye day takk soxna mu ne soxna si dama bëgg mën a yow bu ñu xuloo mu ne ko lu tax lu ñuy def mu ne ko saa yu ma meree neexal ma saa yu ma meree neexal ma saa yoo meree ma neexal la te ñaar yi rek moo ci nekk yow nga xëy rek ñàngal fas kanam parce que tey xam nga ne xaw dañ lay lay dépassé affaire yi xawul bari nga commencé wala moom tamit mu xëy jeex na kenn ku nekk nag bu toppee meroomam ci mer luy xaw ci kër gi wax naa leen démb ne léeg-léeg nga gis kër immeuble bu rafet nga ñee borom fekk bomb ci bomb la toog waa ji bu wàccee liggéey du ñibbi du ñeme ñibbi léeg-léeg nga gis jigéen nga dugg ci néegam matériel bu ne nekk fekk neexul sëyam neexul kon mbir mi du kër yi kër yi mbir yi du matériel yi du meuble yi mbir yi kon lan la ci nekkin wi nekkin wi nag bu rafetul meuble yi lu muy rafet rafet amul njëriñ kër gi lu muy rafet rafet amul njëriñ lekk gi lu muy neex neex du saf jigéen day feebar dem hôpital def analyse def rajo ñu ne ko gisuñu ne la feebar xamuñu lan la te nga gis ko muy jeex nit ñëpp xam ne kii dafa feebar mais fekk li ko feebar du lii am na ci góor ñoo xam ne tàng nañ benn peeru tàng boo xam ne benn waay dafa tàng ba xëy fase juróomi jabar te ñeent ñee ko dagan de bu fase juróomi jigéen te ñeent ñee ko dagan dafa am ñeenti soxna mu dem soxnay xeex ginnaawam xuloo quoi xam nga souvent boo nekkee góor gu amul fulla amoo personnalité munoo gérer sa kër nga am ay ñeenti femme dañuy def clan ñaar ñii ñaar ñii maanaam aaw beeg ñetteel bi ñaareel beeg ñeenteel bi noonu la ñuy def waaw parce que aaw ak ñaareel souvent boo takkee ñetteel rek aaw bi de ñëw sama àq ko dal xamoon na ne la ma waxoon dina ko xuri ñetteel ba lay farali ci ñetteel bi tamit ñaareel buñ takkalee ñetteel bi wujju mu allié ci pari fële léegi nag lu mel noonu ci kër bu góor gi amul personnalité ñoom ñeent mu boole leen ci fitna lay dëkk dama musa wax sama benn ndongo xam naa ñëwul tafsir peut-être dina ñëw mu ñëw ne ma dama bëgg a takk ñaareel ma ne ko déedéet ma ne ko xam naa ne di nga ne ah way yow sag moo soof ay yor ñaari jabar balaa ko dafay takk ñaareel mu daal ma déedéet waaye ñu dem ay weer ay at mu ñëw toog sama kanam ne ma ndeke ñaareel xale du ko yor ma ne ko du question xale fulla la moo koy yor waa ji xëy rek ay jabaram xeex mu wàcc si ne lan la aaw bi di wax mu ne ko fase naa la kan mooy xaritu aaw bi ñetteel bi ne ko xanaa bala nga koy fase mu nga mu wax mu ne ko fase naa la ñaareel bi na ñëw mu ne ko fase naa la ñetteel bi na ah mu ne ko fase naa la dëkkandoo bi doon arset mu ne ko fase naa la ndaw si ne ko juróom ki mu ne fase naa la juróomeel ndaw si ne ko man du ma sa jabar jëkkër ji ne ànd naa ci fase naa la ñaata jigéen lañ fase bis boobu juróom lan moo waral loolu tàng xam nga loolu ci biir kër xëy benn 30 secondes nga fase si juróomi jigéen loolu dëgg-dëgg du diine lan moo waral loolu mooy tàng loolu du li yàlla subhanahu wa taala di ñu wax ci aaya yi mooy lan na ngeen nekk ak ñoom nekk bu rafet loolu nekk bu rafet sunu borom subhanahu wa taala mu ne na nga ko téye téye bu rafet mënatoo ko nga bàyyi ko mu dem jigéen ku nekk ak moom da ngay nekk ak moom nekkin bu rafet bëgg ko gis xam ne da ngeen a nekk nekk bu rafet mënatuloo ko nga bàyyi ko mu dem mais léeg-léeg naa leen démb nga gis benn waay boo xam ne yow fii laa lay bàyyi ci kër gi duma la fase kenn du la takk te duma la yor naa la mbugal ba ku la gis xam ne ñu ngi lay mbugal loolu ku ko def rek yaa ngi ci bàkkaar bu garaaw yow góor parce que diine daf la koo sant daf la ko tere amoo droit def ko yàlla na téye téye ko téy bu rafet wala nga bàyyi ko ba iddaam jeex nga boyal ko ci njekk encore jigéen boo koy fase tamit danga koy fase ci njekk jigéen ku koy fase da nga koy fase fase bu rafet yàlla sax dafa ne ku fase jigéen na ko utal yóbbal utal ko yóbbal borom xam-xam yi ne li gënoon rafet mooy nga ànd ak moom ba marché ba jëndalaat ko valise bu bees jëndalaat ko yére yu bees ak lépp lu muy aajowoo nga jox ko yóbbal dugal ko ci oto boole ko bagage am ba biir kër baayam ndeyam ak baayam fa nga ko jëlee woon nga wàcce ko ndànk daan ne ndeyam ak baayam kii daal yéena ma ko mayoon ñu ne waaw waaw wax dëgg yàlla day ku baax la de waaye waxtu yi daal mënatunoo nekk man ak moom comme yéena ma ko mayoon nag maa ngi leen di gërëm di leen sant indi laatal naa leen ko mu ngi nii bu iddaam jeexee daal ku ko may guru na yëy loolu moo rafet loolu mooy fase bu rafet mais fase boo xam ne deret mooy tuuru bët a pat wala bëñ damm wala nopp dagg wala loxo damm wala faar damm wala tànk damm ah wala tuñ bu dagg wala nopp bu dagg loolu moom sunu borom subhanahu wa taala sant ko benn góor ngay fase noonu jigéen amul benn diine bu ko wax te bu dee lislaam la yonent bi daf ko yàlla daf ko tere sunu borom ne fase bu rafet fa yutiha kaamil xuquqaha na ko jox ay àqam ba mat sëkk wala yazkuruha illa bi xayrin kenn amul droit fase jigéen di wax ci moom lu ñaaw kenn amul droit fase jigéen ba pare dem ci grand place bi di wax sikkam amoo droit te ñun loolu la ñuy def man gis naa waaju toog ci télévision di wax sikku jabaram li tax mu bàyyi ko waaye ndaw su waay kooku te looloo am tey Sénégal xoolal artistes yi dañuy nangoonte jëkkër ba pare toog ci télé bi ñu lay laaj waaye yow loolu la booleeg sa jëkkër loolu la booleeg sa jabar ngay wax dañuy invité nit ataaya wala wala wala leeral wala nga ñëw toog ñu ne la yow dégg nañ da ngaa waaye da nga fas sa jabar nga ni waaw la la nga ne ko loolu seen yoon nekku ci loolu sama vie privée la du ma ko wax waaye ah lan la rek nga commencé jigéen ju gën a yées ci àdduna bi mu nga woon ñu ngi lay dégg xam nga loolu lu tax lislaam di la ko tere soo waxee ci moom lu bon kenn du ko takk parce que nit ñi dañuy wax ne ko bon la te amaana yow lii ngay wax ni du dëgg xam nga lu tax képp ku fase jigéen beneen waaye ñëw takk ko waa ji daf laa weddi daf laa wax yow li nga wax du dëgg dégg ngeen li ma wax saa yoo fase jigéen iddaam jeex beneen waaye ñëw takk ko daf laa wax yow li nga wax du dëgg moo tax man ma ñëw jël naa ko te dinaa la won ne du dëgg mooy moom mu nekk ak moom ba dee ko ko du daf laa weddi moo tax ñu lay tere ngay wax ci moom safaan lu bon bu dee ko góor gi tamit amoo droit ku jigéen gi tamit amoo droit dem ci jigéen ñi ca pénc ma di wax say mbóoti ki nga nekkaloon léegi nekkatu leen waratoo wax ci moom di yàq deram nekkatu leen bi ngeen nekkee sax dañ la ko tere war yonent bi nee na jigéen ji gën a bon ci jigéen ñi wala góor gi gën a bon ci góor ñi mooy góor gu fanaanoog soxnaam ba pare di ko nettali wala jigéen ji nga xam ne dafa nekk borom këram ba pare jaar yoonu marché gàddu leketam di nettali ay xaritam li mu fanaanoo biig ak jëkkëram te tey loolu moo fi am léeg-léeg ma xool télé bi ma gis ay jigéen yoo xam ne télé bi daf leen seet ci seen kër ñuy wone di wax di wane kër gi di wane kër gi ba wane salle de bain bi salle de bain bi ñuy wone di wone di wone ba wane ndaw si buy fanaanoog jëkkëram yi muy takk ci yaramam wala yi muy woddoo wala yi muy sol wala ànd bi muy def cuuraay loolu ci lislaam nekkul woon lu ñuy génne ci biti yàlla sax dafa ne jigéen buy dox amul droit dóor ay tànkam ci suuf ndax li mu takk di yëngu nit ñi di ko dégg wala loolu du aaya ah aaya la de wala yadribna bi arjulihinna li yu'lama ma yuxfiina min zinatihinna jigéen amul droit di dox naan kukur kukur kukur li mu takk ci ndiggam di yëngatu wala lam yi di yëngatu ci loxo bi góor ñi di ko dégg amoo droit gis ngeen bu yàlla ne amuñu droit di ko dox di ko yëngal muy nit ñi di ko dégg kon est-ce que am nañ droit génne ko télé di ko wane moo tax doom ju baax dina yéex am Sénégal doom nit ñu baax dina yéex amante Sénégal de doom daal léegi lii la mën a nekk mbër gaynde rappeur mannequin musicien ah football indi leen na ñëw comédien théâtre kat yooyu rek la doom yi mën a nekk tey doom yi waaye doom yu baax kilifa diine non day yéex am léegi day yéex am lu tax parce que li yàlla bëggoon loolu lañ jalgati sutura bi lañ génne weer ko weer ko ci mbedd mi weer weer ci mbedd mi lañ ko def def ko comme ni ñuy def jën xar ko ci digg bi weer ko pour def ko géej loolu yàlla daf koy jare ixwatal iman suñu borom nee na góor na jox jigéen àqam ba mat bu mu wax ci moom lu dul lu rafet wala yazkuruha illa bi xayrin wa yatrukuha tazhabu haysu sha at na bàyyi fase na ko na ko bàyyi mu dem ko bàyyi mu dem fu ko neex boo fasee jigéen nekk na sa kër jël na iddaam iddaam jeex na boyal ko delloo ko ba seen kër nga bàyyi ko beneen góor bu ko gis takk waaye téy ko ci kër gi di ko fitnaal di ko bunduxataal di ko lor doo ko jox mu lekk doo ko jox mu naan wala takk loolu ñu naan takk koo ko fase woo ko léeg-léeg nga dem ci benn kër kër gi nekk ñeenti néeg néegu aawo bi saal bi néegu ñaareel bi néegu xale yi nga xool néegu aawo bi gis ñu jël bant bant sës ko ci bunt bi dóor fi benn pont dóor fi benn pont mooy néegu aawo bi du ubbeeku ci saal bi loolu mooy kii bokkatul ci kër gi loolu gis xam ngeen li may wax ak kër goo dugg saal bi nekk ñaari bunt yu génn ci ñaari néeg ñu fermer benn bi def ci benn bant nii christifié ko nii xamal borom néeg boobu dundul ci kër gi donte ne mu ngi fi dundul te loolu du jeex ci kër yi du jeex mooy kii niñ def bunt bi lañ ko def dañ ko reye mais nag lu tax mënu dem peut-être ay doomam a ngi fi nee nañ xoolal gis nga maire bi boo ko fasee itam du fi buuse bu génn di am yow mi yaay caaw yaay góo waaw paa bi ragal nag daal di bàyyi maire bi ci biir kër gi mu toog waaw waaw waaw d'accord d'accord d'accord léegi da ngeen may wan ne waaw léeg-léeg nga gis ndeysaan xale yi def loolu paa bi mer dem jaay kër gi ci suuf dañuy toog bis rek huissier ñëw waaw nit ñu may leen dele ne leen xam ngeen lan la ñu naa ñu ne kër gi na ngeen ñu la xaw ñu ne dëkk paa bi jaay na kër gi bu ja ngir mere meer bi mere xale yi fu muy mujj mooy lu olof yi wax ku iñaane sa ndono sa deewin ñaaw nga dem aduna dab la xale yi muñ tekki jëndal seen yaay kër fekk yow yaa ngi souffrir ñu jëri la nag di la indi ngay di jooy jooylu di jooy jooylu loolu góor da ko war a mooy tandi doom yi sa doom la soxna si sa soxna la am ngeen jafe-jafe yàlla subhanahu wa taala nee na jigéen ak góor bu ñu amee problème dañ ko régler bu ñu bëggee jigéen bu bëggee ku régler séyam dinañ ko régler ku góor ki bu fekkee doyalul bëgg na séy bi ñu régler ko dañ koy régler ak problème bi lu mu mën a garaaw nag dañ koy régler waaye nag ñoom ñaar bu nekk doyalee aussi solution mën na am mooy ku nekk na dem ci dem bu rafet léeg-léeg nga gis mère bu baax ndeysaan bu jàpp seen doome mi ne leen seen papa de ku baax la woon yàlla moo jeexal sama digganteeg moom mais ku baax la ku ma yërëmoon la ku def nangam la tàqalikoo nañ nag waaye ku baax la macha allah. léeg nga gis tamit ku góor ku ko wax seen yaay di nekkatu fi mais ku baax la woon yàlla nag moo jeexal loolu lañ bëgg mais seen yaay imbécile la seen yaay doomu seen papa xaj la saay-saay bu bon la. fii la daan bàyyi ba mu xëy mu jàpp mbindaan mi wala mu dàpp yooyu kenn du ko wax xale kenn du ko nettali xale yonent bi saa salaam da doon wax saxaaba yi ku ci ku ngeen gis mu def ci lu bon bu ma ko kenn nettali bu ñu leen woon seen ilimaan bii kër guddi gu ne kër gi lay dugg bàyyi ba guddi nga ñëw guddi nga ñëw ruq nëbbër ci ruq nga seen imaam di dugg fajar nga ñëw fekk imaam taxaw naan bismillah defal leen soppe looy wax sa xel ci lan lay dem saa yoo ko gisee ci loolu lay waay bu dee ku ko yab nag dinaan dem leen ci kanam mu ne demuñu dara defaruñu benn sàppe waaye yow ban defar sàppe man naan lu xew mu ne ko xamoo lu xew yow xamoo lu xew ah lan la waa ji di ko bàyyi loolu mu dut ko ko kon nag yàlla subhanahu wa taala lii la ñu sant mbokk yi ci sunu biir kër yi nga la waay aaye alxuraan yi wax naa leen démb ak barki démb ak barkaati démb aaye yi du pour ñu dee ñi yéen waa Sénégal bàyyi leen balaa ngeen di jàng alxuraan nit dee lii ñuy jàng bii sunu kanam lii ñu jàngoon démb li ñu jàngoon barki démb day wax ci attey sëy góor ak jigéen suñ bàyyee ba waa ji dee nag ñu ñëw di ko liiral attey sëy fekk dee na yaakaar naa kooku dootul sëyati dootul mën a dund loolu ñu bàyyi ba waa ji dee ñu ñëw naan ko fa ida tallaqtumu nnisaa fa balagna ajalahunna fa amsikuhunna bi maarufin aw sarrihuhunna bi maaruf wala tumsikuhunna diraran litaatadu wa man yafal dhalika faqad zalama nafsah wala tattakhizuu ayati llahi huzwa واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء أليم باي با واجي دي ndaysan ñu ko teural ci kanamu juma ji wala ci morgue bi ñu koy sang wala dem nañ suuli ko ba ñëwaat ñëw naan ko yàlla nee na fa iza talaqtumu nisaa bu ngeen fasee jigéen ñi ah waa jooju lu mu ci mën a di fa iza su fekkente ne talaqtumu nisaa fase ngeen jigéen fa balaag na ajalahunna ndaw si dem toog di iddaw di iddaw ba idda bi jot wala balaa idda bi di jot fa amsikuhunna na ngeen leen téye dellu siwaat leen ndax idda bi jeexul bi maarufin ci njekk waa ji dee na ñu koy wax li ñeneen ñi toog ci ginnaaw naan yor seen kurus naan amin amin amin ndeysaan Sénégal ndeysaan Sénégal ndeysaan Sénégal ak ak yërëmtulu ak ruslu ak nekk gàcc bàyyi ba nit dee ñu ñëw di ko liiral atte yi nekk ci alxuraan ku dee lu mënati mën na fa sa jabar alxuraan ay atte la ahkaam ahkaam ay atte la ahkaam ay atte loolu mooy alxuraan nga jàng suratu yaasin yàlla mu ne li tunzira man kaana hayyan nañu waar ci téere bi ci alxuraan bi kuy dund xay la wax xay kuy dund kuy dund yàlla wax nañu ci alxuraan ne ñi ngeen di woo te dañoo dee ñi ngeen di waxal te dañoo dee dégguñu leen te buñ leen déggee it mënuñu leen a wuyu ini lazina taddoona min dunillahi amwaat gayru ahyaa wa ma yas'aluna ayana yub'as yàlla nee na ñii ngeen di wax xamuñu sax kan la ñuy dekki xamuñu ko kon mbiri ay atte la nañ jël alxuraan bi yéem ko wàcce suñu biir kër yi li yàlla di wax ci ay atte nga xam ko jàng ko def ko ci sa bopp pour ëllëg ak sa biir nga xam nooy nekkee sa jabar nga xam nooy nekkee sa jëkkër tey yaakaar naa semaine bi yëpp ci lan lañ nekk ci atte sëy semaine bi semaine ci atte sëy te jeexagut de semaine bii yëpp ci sëy lañ nekk pourtant ñu ngi koy jàngale de comme ni ci ci jàkka yi ci waaye dafa am yu bari yoo xam ne leeral yi day des li waa ji di wax ne dañ ñoo xañ ba xañ ñu sax nu ñuy yenn saa yi nga dégg Sénégal ñu ne alxuraan kenn waru koo firi ñii dañoo sob xale yi lii moo tax rek ñuy alko léeg-léeg nga dégg ko wax loolu ne la alquran kenn waru koo firi waaw léeg-léeg ñu ne la boo fekkee ñuy firi alquran demal nga uti dàllu weñ nga daw ba dàll yu xoosu ba jeex mais bul fekkee fu ñu koy firi ndax alquran waxu yàlla la kenn mënu koo firi ku koy jéem a firi day alku day torox day dee mais al loolu dafa wuuteeg li yonent bi jàngale dafa wuuteeg li yàlla wax alxuraan bi dafa ñëw pour génn ñi ci lëndëm yóbbu ñi ci leer alxuraan dafa ñëw nekk tibyaanan li kulli shay di leeral lépp pour jullit xam lan lay ursi ci kaw suuf xam ngeen tubaab lii lan la ah lii lan la tubaab saa yi defaree appareil da koy dugal ci kees ci biir kees gi lu mu ciy def benn këyit su ndaw même bu dee garab la defar garab gi ci biir kees gi la koy dugal ci biir kees gi mu def ci benn loolu ñu naan notice walla catalogue pour nga xam nooy naane garab gi ndax da ngay jënd garab ñu ne sans comprimé nga ñëw rek jël ndox rek naan sans yëpp boo ko defee nga dem ne dara dal la nga ñu ne waaw noo naane garab gi nga ne sans yëpp ñu ne eh yow xanaa gisoo li ci nga naan non man dama yaakaar ne garab lañ ma wax rek dama bëgg a wér moo tax man naan sans comprimé yëpp gis nga mooy yow liñ la jox defoo ko niñ la waxee moo tax loo ciy jëlee bu doon courant la aussi yenn saa yi ñu yónnee la benn appareil mais ñu ne la yéen Sénégal seen courant bi dafa am doole il faut nga ut dem benn benn appareil boo xam ne da nga koy monter mu nekk diggante appareil bi ñu la jox ak courant bi muy jël transformateur mooy wàññi degré courant bi ba courant bi du yàq appareil bi mais bu ñu la ko joxee ñu wax la nga ne waay courant courant ay façon la mooy waxi lan courant yëpp a yem ñii dañu bëri problème nga ñëw jël appareil boobu nga branché ko sooy dugal mu ne pëf day exploser toj nga xam ne kon li la waa ji waxoon dëgg la pour loolu bañ a am foog nga jël catalogue bi xool même yenn saa yi ñu jaay la benn matériel boo xam ne dañ koy tas démonté tas loolu ko ci kees gi ba pare defal la ci noo koy monté nga ñëw njëkk samp tànk yi vis dafa yëpp ñu ne la lii mooy nekk fii defal la ci ay numéro soo bëggee appareil boobu normal baax nooy def foog nga ubbi catalogue bi waaw yàlla subhanahu wa taala bi mu bindee nit da ko boole benn catalogue mu ngi noonu ngeen yor seen loxo yi mu ngi noonu ngeen tiim li mooy catalogue bi nit ki bu buggee xam li muy def si ci kaw suuf nan la fiy dundee naka naka naka ndax day branché wu ci courant bi ndax day lii ndax day laa day xool téere bi rek mu xam fu muy teg tànkam mu xam ni muy dundee waaye boo ne ah lii de xam naa waa ji daf koo bind rek dugal ko ci biir carton bi waaye amul njëriñ daal di koy xotti daal di jël sans comprimé yi teen naan waaw naan nga toogal cinq minutes cinq minutes lañ la may wala est-ce que di nga fa yegg nga commencé ñu ne jëli leen ambulance bi gis nga lii la dal kan moo la ko teg sa bopp naka noonu appareil bi naka noonu oto bi naka noonu lépp lu nekk ci àdduna noonu la garab gi sax boo koy jëmbataat garab boo ko buddee di ko jëmbataat dafa am norme yoo xamante ne boo ko suulee ci garab gi garab gi day dee fokk nga def effort fi taat bi yemoon ci suuf suuf si yem fa boo ko ëppalee garab gi dee boo ko manquelee garab gi dee gis nga waxuma laag nag leneen ak leneen ak leneen ak leneen kon mbokk jullit yi téere bi muy alquran yàlla moo nu ko jox pour lan ñu xam nu ñuy dundee ci kaw suuf yàlla leeral ci lépp jàngale ci lépp ne maa faratna fil kitaabi min shay téere bàyyiwuma ci dara lépp a ngi ci lépp lu ngeen soxla mi ngi ci lislaam aw dundin la léeg-léeg ma laaj gars yi ma ni leen fii ngeen toog kenn ku nekk ci yéen na laaj benn question laaj lislaam wax na ci wala lislaam waxu ci benn question rek fii ñu toog jumaa ji dafa fees kenn ku nekk ci ñun laajal benn question laaj ndax lislaam wax na ci wala waxu ci lislaam wax na la nooy sole dàll noo koy simmee nooy sole yére bi noo koy simmee nooy dugg ci biir duus bi nooy génnee noo fay toogee lislaam wax na la booy dugg sa kër nooy duggee booy génn nooy génnee booy tëdd ak sa soxna ci kaw lal bi sax lislaam wax na nu ngeen di nekkee même su ngeen di sëy wax na leen nu ngeen di sëyee balaa ngeen di sëy sax jàngal na leen lan ngeen war a def ndeysaan benn yahud dafa ñëw ci abu darda mu ne ko waa yéen seen téere bi jàngal na leen lépp mu ne ko lépp mu ne ko lépp mu ne ko lépp mu ne ko même booy dugg duus mu ne ko waaw nooy duggee nooy génne noo fay toogee waa ji bëgg a dem mu jàpp ci mbagg yi ne ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa jàngale ba jàngale picc mu sab picc sahaaba yi yonent bi bàyyi leen ba picc mu taxaw tiim leen daal di yuuxu yonent bi wax na leen picc mi lan la wax doog a génn àdduna waaw loolu lu mel noonu ay nit dinañ ko xam ba pare nekk ay làmbatukat nekk ay taxankatu guddi lu mel noonu nit ñi di yàlla dina leen ko jox ba pare tey fi ñu toll jullit yi gën a tardé ci àdduna bi su ko waral mooy li leen yàlla jox lañ yitteewul xoolal ñi nga xam ne yàlla joxoon na leen démb alxuraan ñu jàpp ci ñoo raw ci àdduna bi dëkk boo dem ñi jàppoon ci li yàlla joxe ñoo fa raw ñoom la ñuy màggal ñoom la ñuy ba ci Sénégal ñi ñu fiy màggal yëpp lan lañ jàngoon ah ñi ñu fiy ziyaara ji luñ jàng jeex na xam nga lu tax dafa màgg ba ku ko màggal màgg dafa rëy ba ku ko rëyal rëy waaw dafa ngand ba ku ko ngandal ngande pourtant kilifa yooyu ñuy màggal am nañ papa ak yaay El Hadji Omar Foutiyou dafa am papa am yaay moo ak papa am ak yaay am ku gën a siiw ah ah Cheikh Ahmad Bamba kazalika so misaal boo doon laaj fii tey kan mooy jur kan mooy woy juri Cheikh Ahmad Bamba ñu bëri xamuñu ko mais xam nañ sëriñ bi lu tax gis nga alaaji Malik kazalik lu tax gis nga parce que jom dañoo jàppoon ci Qur'an moo tax gis nga li ñu am jàppuñ ci comme ñun nuñ ko jàppe woon de waxuma sax léegi ñu wax sahaaba yi déedéet nañ bàyyi sahaaba yi ñu wax leen ñooñu noonu ndax ñoom ni ñu jàppoon alquran doon ko dundee ñun noonu lañ def tontu bi sax mooy déedéet gars yi nee nañ Cheikh Ahmad Bamba daawul fanaan ci kawlal da cee woy sax bind ci benn téere tudde ko yaa kitaaban lal bi dégg naa moom nee na du tëdd ci kaw alxuraan nekk ci suuf alxuraan bi la jël lal lal bi ba mu rafet rangé ci téere yi muur ko darab sotti ci parfum du dëgg doo xare lal ndar di tëdd ci suuf alaysa kazalik ñun nag ñun kaamil ci suuf la leen di teg fii ci jàkka ji sax kaamil bi ci suuf la leen di teg fii ci jàkka ji la wax kaamil bi ci suuf la leen di teg suuf la leen di teg ndeysaan keroog dama ko wax fi benn waaye ne ma wallahi def nañ ma ko Arabie Saoudite dama ko wax fi keroog man leen dama dem Arabie Saoudite dem ci Kaaba gi lal sama sijaada de boo xam ne dama ko jënd bu bees tàq lal ko te ci biir am na sijaada ma lal ko kon sijaada bu tegu ci kaw sijaada la ma jàng ba pare rek teg kaamel bi ne damay naafile ne allah rek benn naar yuuxu ma subhanallah ma ni ko nii mu ne ma kaamel bi ba pare yëkkati ko de toog ci su yëkkati kaamil bi foon ko teg ko ci dënn ma pare mu jox ma ko ne ma teg ko fii képp ko mu ne ma lii ci kaw rek lay nekk lii kenn du ko teg ci suuf may wax fii keroog waa ji toog fële ne ma wallahi man tamit def nañ ma ko ma dem école benn parent d'élève fekk fa may waxtaan ak moom mu ne ma wallahi def nañ ma ko gis nga ñooñu kon ça veut dire que du du benn nit moo fa nekk di ko defaate déedéet ñoom loolu lañ leen yere mooy alxuraan ci kaw la war a nekk loolu lañ leen jàngal am nañ ay gan yu jóge Pakistan ñëw fii ñuy waxtaan ak ñoom ndeysaan ci alxuraan naar bi nañu ñun sunu dëkk kenn du fa jàng alxuraan di def bopp neen kenn du toog di jàng alxuraan def bopp neen pour tegginu quraan allahu akbar ah ma xam ne nag mbir mi moom ku nekk nañ la ko joxee rek uude bi nam la gisee téyeer bi nam la gisee waaw léegi léegi laa dem juma ji ma doon jiite benn waaye woo ma ne ma lii de dañ waa jooju nag dafa ma bëri lu mu may woo ne ma xoolal liñ ma joxati comme xam nga moom dafa nekk hôpital ndeysaan souvent day dimbali nit ñi léeg-léeg mu dimbali nit rek nit ki ñibbi këram sam waaye def ay xarfa fuufa xool ñun lii mooy ci ñun alxuraan ñun alxuraan nii rek lañ ci xam mooy njabar njabar rek njabar léegi léegi lañ ma ko jox juma léegi alxuraan ñun lii rek lañ ci xam léegi ku bind lii ba pare ne la def ko téere def ci póon póon alxuraan ñu ci def póon léeg-léeg mu ne la def ci deru xaj ëwe ko deru xaj laa ilaha illa allah laa ilaha illa allah en tout cas li nekk ci réew mi ku ko bëgg a wax nga am problème am nañu yàlla jubal am nañu yàlla jubal alxuraan ni mu màggee nga gis nit ñu jox ko ko ndeysaan di ko ci def loolu xaraam di la ci boole loolu araam sunu njabarkat yi sax xam nañ ko pour nga nekk njabarkat pour nga nekk njabarkat foog nga toroxal alxuraan ba pare nga doog a nekk njabarkat pour nga nekk njabarkat laa wax pour nga am ay jinni pour nga nekk koo xam ne foo wooye jinni mu ñëw foog nga toroxal alxuraan wala nga toroxal lu lu yàlla fonk comme jàkk alxuraan yu demee noonu nga toroxal ko pour nga am ay jinni pour nga nekk ci kaw pour nga foor wala julli mbaa koor la yu demee noonu ngay toroxal jël kaamil dugge ko biir duus jël kaamil binde ko deret ji jigéen di indisposé dugg ci jàkk fekk yaa ngi am janaaba doo sangu saw ba pare wisuwoo ñëw julli fekk jàppoo ah yu demee noonu la jabarkat yéeg musiba naaru laay di def pour am ay jinne pour jinne yi di la jàppale ci li ngay bëgg ñu lay jàppale pour mu am di la ko def loo yéen nga ñëw benn waay ne la yow de yaa ngi jóge dëkku sàngam nangam nga tudd nangam nga sant sa papa mooy di rek nga ci mais waa ji garaaw na dama ne tëll rek mu wax ma sama sant Jóob Jóob Jóob ana waa dëkk sàngam bi ngay ñëw lañ ma wax ne yaa ngi ñëw su ko defee kooku tamit dem tas diw diw nit kii kooku non yéen xamu leen kooku yàllaa ko may yàlla may ko ay jinne la yor yàlla may ko ay jinne la yor Sénégal nag dañoo bëgg affaire yooyu ñu ci bëri ndeysaan yenn saa nga dégg ñu ne yàllaa ko may borom xam-xam la fekk ay jinne la amul benn xam-xam te dara taxul mu ànd ak jinne yu lu dul dafa weddi yàlla alxuraan moo ñu ko jàngal alxuraan moo nañu wa maa kafara Suleymaan walakinna shayatin kafaru yuallimaan yuallimaani nnaasa sixra yuallimuuna nnaasa sixra wa ma unzila ala almalakayni bi baabila haaruuta wa maaruut wa ma yuallimaani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur gis nga seytaane dañ naan la bul weddi yàlla ba nga lànk ngand ngandlu soo ne garaawul ñu jàngal la mais balaa seytaane yi di la jàngal njabar dañ lay wax bul weddi yàlla ba pare ndax ñun ñun ñun dañoo weddi yàlla ñun ay yéeféer lañ ba pare yàlla mu ne wayu fa yuallimaani maa yufarriquuna bi bayna al mar'i wa zawji ñu jàngal nit nu muy nu ñuy tàqalee diggante jëkkër ak jabar xolal mooy bindal la benn téere jël alquran bi juutal ko defe ko lay na lu bon ne la téere bii da ngaa bëgg rek ñoom ñaar ñu tàqali ko nga ne waaw wala da ngaa bëgg waa ji bu mu waxati wala waaw wala da ngaa bëgg waa ji nangam wala demal ba ci armeel yi nga dem ba ci boppu néew bi nga ni yow borom bàmmeel bi maa ngi lay dénk téere bi ba yowmal qiyaamati gis nga ah su ko defee nga ñëw ñibbisi jékki-jékki rek problème commencé maanaam ñoo koy def day am taasir day jàpp nit parce que dañ ko ko def moo tax yonent bi jàngal ñu lan la ñuy dindee njabar comme njabar am na lan lañ koy dindee njabar dafa am lu am la ndax yàlla moo ko wax dafa am jàngeen sax histoire Moussa ak njabarkat yi yàlla mu ne Moussa ay njabarkat la dajaloon waaye fii ci lislaam ku am kàttan jàpp ci yàlla fii njabarkat du fi naan ñeex innahu laa yuflihu saahir wala yuflihu saahiru haysu ata Moussa njabarkat la dajaloon ñoo xam ne bu ñu sànnee seeni yat yat yi nekk ay ñàngoor ay jaan keroog bi gaa yi Moussa dajek ñoom ñu sànni mu nekk ay jaan Moussa dafa tiit yàlla moo nu ko wax fa awjasa fi nafsihi xiifatan Moussa yàlla ne ko yaa Moussa mu ne ko ah mu ne ko laa taxaf bu ragal innaka yow antal aala yaay kawe comme comme dee nañ ko mu ñemee parce que dafa ànd ak yàlla mais gars yi la ñu indi woon ci njabar biñ ko sànnee Moussa li muy nekk yonent dafa tiit yàlla ne ko yonent du tiit man nga àndal demal innani maakuma asma'u wa ara demal yàlla ci firawna laa jëm de firawna yàlla ne ko ma ne Moussa mu ne mu ne ko demal maa ngi dégg maa ngi gis allahu akbar inni maakuma maa ngi ànd ak yéen asma'u maa ngi dégg wa ara te maa ngi gis demal tey jii ku demoon ba buntu pale salaamaaleykum ana Macky Sall bu la benn waaye ne woon demal nga waari Macky imam nga ne ah oustaz oustaz demal nga waari Macky waaye moo sonal waa yow bara kacca Amérique nu mu tudd Obama ñu ne demal nga waari ko demal demal demal yàlla ne Moussa demal Moussa ñëw ba buntu kër Firawna sone buntu bi garde corps yi ne ko lan la mu ne kilifa gi laa soxla loo koy doyee mu ne yàllaa ma yónni ci moom ya yow da nga rep nga ni lan mu ne yónnante laa yàllaa ma yónni ci moom ah ñu dem wax ko Firawna ne ko am na benn waay bu taxaw fii de nee na yow lay seet lu may doyee nee na yónnante la yàllaa ko yónni ci yow bi leen buntu bi ñu ubbi waa ji dugg fekk Firawna toog ñëpp toog lan la mu ne yàlla mu yónni ci yow nee na nga libéré peuple bi nga libéré banu Israël ñi ngay lor nga topp ma man yonent bi Firaw ne ko lu yàlla wax kan mooy yàlla mu ne ko borom asamaan ak suuf ak li ci diggante bi Firaw na fan la nekk waaw boobu Firaw ne nee na moom mooy yàlla yàlla yónni Moussa pour xamal ko ne doo yàlla xam nga buur nga ñëw rek ne ko doo yàlla dafay grave mais da nga koy junj ay wax ba mu xam ne moom mu ngi ci biir te du mun a génn ci gàttal histoire bi tuuti Moussa bi mu sànnee yatam bi yàlla gaa yi bi ñu sànnee njabar bëtu nit ñi yàlla ne Moussa sànnil sa yat Moussa sànni yatam bi yatu Moussa bi soppaliku jaan daa di wan gaa yi njabar gi ñu indi woon yépp njabarkat yi xam nañ njabar ndax ay ponkal lañ ñi gën a garaaw ci dëkk bi la ñu tànn bi loolu amee rek njabarkat yi daal di ñëw ci kanam Moussa daal di sujjoot daan ne aman naa bi rabbi Moussa wa Haarun ñun gëm nañ yàlla mi yónni Moussa ak Haarun ndax lii du njabar rek fii ne leen ya li ngeen koy gëm te joxuma leen digal ah inna haza la makarun makartumuhu makartumuhu fil madinati yéen lii benn pexe bu ngeen pexe ci biir dëkk bi la pour génne waa dëkk bi ci dëkk bi da ngeen bëgg a génne président bi remplacer ko mais mu commencé dinaa leen mbugal mbugal moo xam ne waaw tëb tëb tëb xoola di leen tëkku te ñooñu li ñu def xam nañ danger bi leen ci fekk mais terewul ngëm yàlla nit bu gëmee yàlla mënal dutoo ko dara ku gëm yàlla ku gëm yàlla kënu mënul ci moom dara karwaas mënul ci moom dara kaso mënul ci moom dara ñetti kaaf yooyu mënul dara ku gëm yàlla danaa dagg la uqatti an na laam bi laamul xasam la nuun bi nuunu tawkiid ñi jàng arab la uqatti an na aydiyakum na danaa dagg seen loxo yi dinaa dagg tànk yi danaa leen yeew ba mel ne ku leen dugal ci biir garabu tàndarma yi fii la yàlla utilisé wala usallibannakum fii jiz'i naxla fii mooy ci biir man a yeew bi dafa mel ne da nga leen dugal xam nga du ko gars yi toon xoolal li mu wax ni mu méttee dagg sa loxo droite ak sa tànk gauche loolu métti na wala méttiwul jël jaasi na ko tëppit bu doon loxo bi rek métti na waxuma laa nag ñu boore ñaar yëpp dinaa leen yeew ci garabu tàndarma yi ci kaw takk loxo yeeg tànk yi bàyyi leen noonu ceeli yi ñëw di leen lekk di lukk seen bët yi di butti seen bët yi ba ngeen dee loolu bu ñu ko waxee nit ci pour mu bàyyi benn mbir wala mu deltu ginnaaw ci lu mu gëmoon li ëpp mooy bu gëmul yàlla day day dellu xam nga loolu ñu ñooñu luñ ko wax faqdi ma anta taqdi innama taqdi hazihi alxayata dunia bon defal li ngay def de àdduna rek nga mën dara alaxira mënoo fa tus ñun ak yow a yem te ñun gëm nañ yàlla ba pare mën a la tooñu dara boo ñuy rendi di dagg bopp bi bopp bi nga dagg waaye ngëm gi mënoo mënoo koo yegg ci mënoo yegg ci ngëm yàlla gi yaram bi nga mën a yegg waaye ngëm gi mënoo koo laal boo daggee loxo nga dagg de daggoo ngëm gi boo daggee tànk bi tànk bi nga dagg de daggoo ngëm gi boo yeewee jëmm ji jëmm ji nga yeew mais yeewoo ngëm gi ngëm gi moom ma nga ca yàlla mënatoo ci dara gis nga loolu moo tax ngëm yàlla am importance loolu moo tax jàng alxuraan mbokk yi am importance parce que alxuraan moo lay wax ne waroo ragal ñii ci mbur yi du ma du ma deñ di fàttaliku suñu histoire bi plan jaxaay suñu kër yi bi ñu koy toj mais ñun dañoo bañoon benn bis ma julli fajar ci jàkka ji rek daal di bayaan ndeke ci biir jàkka yi sax ay renseignements généraux ñu ngi ci damaa waxtaan ci jàkka ji ba pare rek bañ loo nit ñi rek huit heures pile ñu woo ma commissariat police bu géejawaay bii ma ñëw ñu ne ma yow dégg naa da nga doon waaraate ci jàkka ji ma ne waaw loo doon wax waaw dama egg ci kër gi waaw egg ci kër gi xam nga loo doon wax ah li yàlla wax ak yonent bi ñu ne ma attention na nga yëg ne jàkk ji loo fi wax ñu ngi koy xam xam nañ ko ma ne ah bon ne waaw comme am na ku ma sib soné woon ne moom la moom moo dem waxi ko ba fexe ba dajeek moom daal di génne sama kaamil ni ko gis nga yow yaa commissaire ak police ak yéen ñëpp kii moo nekk sama diggante ak yéen rek waa ji dem delluwaat commissaire ne dama ko menacé de mort ñu woowaat ma beneen suba si jamono boobu kay saa yi ma bëggee ndékki rek ñu ne ma kaay wuy commissaire ma ñëwaat gàddu sama téere ñu ne ma yow léegi da ngay menacé nit ñi de mort ma ne waaw mi ngi nii de alquran moo nekk sama digganteeg yéen waa ji ne ma eh dag ñu koy wax ma ne ko mu ngi nii ñu def hasard ma ñu def trois jours rek gars yi naawal commissaire bi rek kii kii il est dangereux moo ci leen kii ma dem jënd ji mais nit ñi ñooy tàppet ma dem jënd ji ciment ci benn kànkaay rek waa ji ne ma yow eh yow yow kaay kaay yow dama la soxla woon ma ne ko lan la mbaa jàmm la mu ne yow il paraît da nga demoon commissariat bi di menacé kii bi ak ak commissaire bi ak kaamil quran ah ah. nañu yàlla jubal nañu yàlla jubal alquran mbokk yi ña ca ña ca sukkandiku woon yëpp dañoo mucc dañoo rëcc. li tax gaa yi bañ ñu ñu jàng alquran gaa yi bañ ñu ñu dund alquran gaa yi bañ ñu jàppoo alquran mooy xam nañ ne alquran bi ku ci wéeru rek daaneel la jafe ku ci wéeru daaneel la jafe ku ci jàpp réeral la jafe ku ci sukkandiku sànq la jafe bu leen fàtte alquran yàlla yonent yi la ko joxoon te yonent yi nan lañ ñan lañ dajaloon ay gaa yoo xam ne ñoom firawn ñoom namrud gaa yoo xam ne dañoo bewoon ba ne ñooy yàlla namrud jëloon na fetalam ne day rey yàlla bu leen fàtte firawn moom toog na ba mu neex ko mu ne ana rabbukumul aala et puis maa alimtu lakum min ilahin ghayri ku ma fi dégg nga naan yàlla am na ku dul man dama lay rey waaye xoolal ku mel noonu Moussa ñëw keroog bi Moussa di ñëw ak tubéyam bu gàtt ak yéreem bu doy waar ak yatam ñoom ñaar kese sël ñaar Moussa Haroun ñoom ñaar kese ci peuple ñëw taxaw samp yatam ah yàlla ne Moussa izhab ila firawna innahu taxa faqul hal laka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fa taxsha Moussa ñëw di war a génne firawna ci loolu xam ngeen ne loolu gëm gi Moussa gëm ne yàlla mooy dëgg moo tax Moussa dem alquran bi nag dafa ñëw di ñu nettali ñooñu li ñuy am doole doole lépp ba ñu dajeeg yonent yi yonent yi dañ leen daaneel dóor ci suuf parce que lu tax yonent yi dañoo jàpp ci yàlla moo tax ku jàpp ci alquran kenn mënul ko dara da ngay sonn rek poussière ay bëri rek léegi naa mandikat bi dafa dem naan ba mandi ñëw di ñibbi dajeeg jinne jinne ji naan feew feew feew di génne saxaar mu ne ko jinne bu buggee jommal jinne saxaar ay bëri rek yemal gis ngeen kon nag alxuraan ay dëgg téere bii muy alxuraan buñ ci jàppee rek texe àdduna texe àllaaxira sunu borom ne fa iza talaqtumu nisaa bu ngeen fasee jigéen ñi fa balax na ajalahunna seen dig daal di jot fa amsikuhunna na ngeen leen tee bi maarufin ci njekk aw sarrixuhunna wala ngeen boyal leen bi maarufin ci njekk gis ngeen sëy ñaar yooyu moo fi nekk téye téye bu rafet mënatuloo ko nga fase ko fase bu rafet léegi nag ñaar yi laaj bi ma leen di laaj mooy ci fii ñu nekk tey ci Sénégal est-ce que sëy yi dañ koo téye téye bu rafet est-ce que fase yi dañuy fase fase bu rafet yàlla dane fa amsikuhunna man dama tëb de ah tëbuma de ah fa amsikuhunna na ngeen leen téye bi maarufin ci njekk aw wala sarrihuhunna bi maarufin ci njekk ndeke jigéen gis nga yëpp ñaareem njekk la olof yi loolu lañ naan boo lekkee ci ndab lu ci olof yi wax boo lekkee ci ndab lu bal bam njekk ñu ne taraanga la boo lekkul ci ndab tamit taraanga la gis nga bool bi nga lekk ba lekk bi des nga defar ko ba mu rafet dindi yax yi teg fële dajalewaat li des ci lijum yi ci digg bi defaraat bool bi ba mu set raxasoo bool bi de da ngaa defaraat ceeb bi rek donte ne ku ko tiim dina xam ne lekk na ci mais koo ko tegal bu ñëwee lekk mais boo lekkee ci bool nga caxat caxatee ko nga bàyyi ko noonu nga ub ko ci bool bi gën a rafet palaat bi gën a rafet nga teg ko saa yoo ko tegalee nit nga wane ginnaaw mu ne añ naa ba pare wallahi añ naa añ naa suur naa suur naa parce que li nga ko tegal xelam du ci dem xelam da ciy teey te pourtant moo tax ñu ne lekk bu ñu commencé lekk ak bu ñu lekkagul ak lépp bu ñu ko defaree ba mu rafet rek nit ñi lekk mën ngaa yekk añ léegi nga yekk añ nga yekk ndogu nga dem ba marché nga jënd pot sambour bu bees tàq nga ñëw yekk ci ndogu bi nga ni bismillah ñëpp ñëw ne nii da ngay gis nit ñi naan nii di xoolante nga ni bu bees la kenn toogagu ci bu bees la tàq ni ma ko indee dama ko yalandi rek luñ lay wax ah nga jël bool bi ngay laaboo nga jël bool bi ngay laaboo fukki at nga yekk ndog raxas ko ba mu set def ci ndog bi nga ni ñëw leen ñëpp ñëw walla lu tax kenn xelam tayul nga naan ah nga ni fekk yow yàgg yaa ngi xam nag toog nag naan di ree cey gaa yi bu ñu xamoon bool bi ma leen tegal xam nga lu tax kee sikk kii baax mooy mbokk yi ku nekk sa mbokk kee mbokkam lu ñu xam ci moom lu muy def lu bon kii mbokkam lu ñu xam ci moom lu muy def lu baax gis ngeen gis ngeen gis ngeen lu baax lu baax rek lay tudd lu bon loo ko capp-cappal loo ko loo ko tent loo ko lu bon rek la moo tax jigéen yàlla mu ne kenn du teral jigéen ku dul ku tedd kenn du toroxal jigéen lu dul ku torox foo fekk kuy teral jigéen ku tedd lay doon foo fekk kuy teral jigéen ku tedd lay doon foo fekk kuy toroxal jigéen ku bon a ngoog ku yées a ngoog parce que ndénkaane yàlla la subhanahu wa taala ndénkaane yonent yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na jigéen dañ ko bind ci faar loolu jàngeen ko ci alquran yàlla mu ne yaa ayuha nnaasu ittaqu rabbakum wala du loolu yaa ayuha yaa ayuha nnaas la ittaqu rabbakum alladi xalaqakum min nafsin wahida wa xalaqa minha zawjaha yàlla bind aadama ci biir aljanna ci ajjuma ci ngoon yàlla bàyyi ko ba muy nelaw yàlla damm faaru gauche bi daa di fay génne xawaa kon yow yaag sa jabar lu ngeen bokk fekkee sa jabar ci yow lañ ko génnee lu ngeen bokk moo tax gis nga alxuraan chaque jour yenn saa yenn ay yàlla day wax bu leen xas seen bopp bu leen jëw seen bopp bu leen lor seen bopp xam nga lu tax yàlla ne la sa bopp misaal chaque jour da ngay dégg mu naan leen anfusakum seen bopp sa soxna si ñu génne ci yow sa bopp la soo ko dóoree koo dóor boo ko xasee koo saaga koo saaga sa bopp moo tax yàlla di wax bu leen def loolu seen bopp yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne jigéen dañ ko bind ci faar faar dafa dëng wala faar dafa jub bu dëng yonent bi nee na boo ko bëggee jubanti soo ko bàyyee mu continuer dëng mu ne noonu la jigéen mel mu ne waaye nekkal ak moom ci nekkin bu rafet soo ci amee lu la naqari am nga lu la neex ci moom maanaam képp ku am jabar nekk ak moom cent pour cent boo amee lu la ci naqari am nga lu la ci neex maanaam jigéen léppam bonul mais léppam tamit baaxul dafa am lu baax am lu bon da koo jaxase yonent bi nee na jëlal lu baax li nga muñe ko lu bon li misaal ndaw si dafa tàng kàddu dafa tàng dafa mën a tontu waaye cëy bu la ceebalee cëy bu la fóotalee boo génnee rek ñu ne wuu sa mbasin bi fekk am na juróom-ñaar fukki at waaye ndaw see garaaw rek saa yu ko fóote ba gome ko ba paase ko boo génnee rek xale jigéen naan la allaaji allaaji na nga def fekk sa jabar moo fa jaar waaye nag boo ñëwee ci kër gi ba mu tontu la bu la tegalee lekk rek doo bëgg a lekk walla leneen ak leneen yu demee noonu mën na lii waaye lii walla mën na lii mënul lii waaw tubaab yi nag nee nañ niil niil ah mu ngoog na xam leen loolu yow mii ci sa bopp sax xam nga ne moos matoo lépp gars yi sax dañ naan alkamaalu lillah yàlla rek a mat ñëpp a manqué te nag jigéen léeg-léeg mu mottali la ah léeg-léeg mu mottali la léeg-léeg mu génne la ci ay problème yoo xam ne léeg-léeg nga ñëw ci kër gi rek nga nekk en famille sa yaay say sœur na jarbaat yi gan yi nga ñëw rek ñu ne la ceeb bi jeex na de parce que kañ laa ko jël ndaw si ne la hee dafa ndànk xam nga ñun ñooy togg te nangam ak nangam ak nangam nangam nangam nga ne ah waaw waaw baax na xoolal te su la bàyyoon rek nga toj kër gi tas ko wala nga yenn saa yi nga ñëw ne nangam ñu ne la hee kaay waaye yow sànq loo doon wax nga ne ah nangam ñu ne la déet bi nga ñëwee loo waroon def da nga waroon laajte yow boo da ngay xëy dem maa fi nekk boo ñëwee balaa ngay taxaw di wax da nga maa war a laaj. nga ne waaw wax nga dëgg de wax nga dëgg gis nga ñu wax la nga ne ah bon gis nga jàmm daal di am kon moo tax kër dafa war a am semaine bu nekk 15 jours yu nekk suura 15 jours yu nekk nga dajale kër gi soxna si toog doom yi toog ne bismillah nañu wax ci kër gi problème yi li fi baax semaine bi ak li fi bon li ñu waroon def defuñu ko waaw léeg-léeg doom yi ne la waa pap nangam léeg-léeg mère bi ne la waa yow nangam léeg-léeg paa bi ne la yow nangam léeg-léeg ñu ne paa bi yow nangam léeg-léeg ñu ne xale yi yéen nangam su ko defee problème yi di régler beneen bi mooy loolu li muy njëkk a jur mooy kenn du tooñ kenn parce que dañuy bàyyi xel réunion baa ngi ñëw ku la tooñ yaa ngi ko noté ci kayit di xaar réunion bi ñëw diw de barki dem romb naa ko xëy naa suba fëgg buntu néegam nuyu ko waaye fayuma ba tey ma doon laaj lu xew ñu ne la sëñ bi nga ne ñu ne bismillah kàddu gaa ngi ci yow maanaam nit ñi ni leen lislaam waxee nañu doxalee nit ñi doxale wuñ loolu moo tax problème bëri waaw te li ci metti nag mooy problème bi bëri ba pare ñu jiñ ko lislaam nag waaw mooy lekkuma taquma sama géej mu niinul ñu jiiñ ma ko lislaam taq toggul yekkul lekkul taqul ñu jiiñ ko ko ne ko yow la parce que lu tax gars yi nee nañ moom lañ rek moom lañ yéen ay julli ngeen ñu ne waaw ñu ne voilà voilà yéen ñëpp ay terroriste ngeen ay rekkatu nit ngeen gis nga sunu boroom ne mbokk yi téye leen téye bu rafet walla ngeen bàyyi bàyyi bu rafet wala tumsikuhunna bu leen téye jigéen ñi ci biir kër yi diraaran pour di leen lor duma la takk duma la fase et puis kenn du fi dugg di la seet si léeg-léeg nga gis ko def takk koo ko fase woo ko dégg nga te yàlla da ko tere lu mu wax wala tumsikuhunna bu leen téye jigéen ñi ci biir kër yi ñu ne yàlla ah lu tax mu ne diraaran mudaaratan laha wa idraaran biha waaw yow naa tàngal soxol bi dinaa ko xët doo lekk doo naan doo dund du ma la fase xam nga yow deseetoo kenn sa ndey deena sa bàyyi deena amoo foo jëm fii laa lay bàyyi di la souffrir loolu yàlla la ëpp doole de sam waay yaa ngi may dégg yàlla la ëpp doole kii ngay néewal doole yëgal ne am na boroom benn jigéen da doon aji màkk fekk benn xunt la yor benn kuux xunt la yor xunt mu ndaw mu julli ñaar ràkk daan na yàlla dénk naa la sama néeg bi maa ngi dem mu dem aji mu ñëwaat fekk benn buur jënd côté ba tabax ko immeuble bu rafet mais ku ñëw ci immeuble bi rek danaan waaye ah yow de sa kër gi wax dëgg yàlla kuux bi moo tax rafetul rek mu yabal ay bulldozer écrasé leen ko mu ndaw su ñëwee ma fay ñu màbb méeg bi ndaw si ñëwaat rek ni nii rek gis ay doj mais ku def lii ñu ne boroom kër gi mu fëgg ñëw bi mu ne ko ah yow da nga toj sama kër gi mu ne ko sa kër gi day ñaawal sama kër merde ek dégage ah femme bi daal di génn daan ne yàlla man de aw ma kenn ku may waxal yow laay waxal ndax yow laa dénkoon sama yëf bi may aji defoon naa ñaar rakk dénk la ko bu dee kii damay jaay doole nag ah yow de ku am doole yaa ko may doole yaay borom doole bi gis nga femme bi bala muy eggal benn dënu moo jógee kaw asamaan écrasé kër gi dënu kon yàlla moo la ëpp doole bul tooñ la taslimanna iza ma kunta muqtadiran bul tooñ de loo am doole am doole di tooñ amoon nañ benn dof dafa am doole am doole am doole am doole ngand ponkal ba pare day sol veer yu ñuul nag day jël séisam bàyyi ba naaj ba tàng mu teg ko ci koñ bi ne tëj naa koñ bi tëj naa koñ bi ku ne tëll gis ko mu toog ci sées bi daan ne waaw tëj naa koñ bi loolu la yox de noonu la ko yoxee tëj naa ko toog ne nii ci digg naaj bu tàng bi nag ku ne nii rek yoonu jàmm soriwul wallaay daal di wiiri ndeysaan ndeysaan ndeysaan mbokk yi yàlla nopp doole bul tooñ bul tooñ yàlla la ëpp doole bul tooñ de bul tooñ la taslimanna iza ma kunta muqtadiran xanaa xamoo tooñ fu muy mujj baaxu tanaamu aynaak wal mazlumu muntabihun yaddu aleyka waynullahi lam tanami da ngay tooñ dem tëdd di nelaw waa ji guddi jot mu jàpp lal si jaadaam jàkkaarloog boroomam te gis nga ñaanu ku ñu tooñ yàlla du ko delloo moom ñaanu ku woor moo yem ñaanu ku ñu tooñ kenn du ko delloo kon bul tooñ kenn du tooñ jigéen bul ko ëpp doole rek parce que gisatoo ko kenn parce que xam nga ne bi nga koy takk xale bu rafet la woon léegi màgget na wala léegi ñaaw na wala léegi nangam nga commencé di ko métital pour bëgg mu dem am na gaa yoo xam ne bu ñu bëggee takk keneen rek benn néeg lañ am benn lan lañ am xamuñ ñuy def rek di commencé di indi ay problème di la kereel ay problème pour nga gedd dem ba ñu indi keneen teg c'est pas ça adduna du noonu xalaatal démb bi nga ko bëggee ñeneen bëgg ko ay góor taxaw ku nekk taxaw naan ko xolal man la de mu bàyyi ñëpp weddi leen ne la yow la yàlla ne wa axazna min kunna min kum mithaqan galiz allahu akbar galiz foog ñu jàngaat quran foog ñu jàngaat atte yàlla yi ci sëy yi foog ñu jàng alquran wallahi sans alquran suñu dara du baax en tant que ay jullit sans alquran ñu bugg am ngërëmal yàlla ci kaw suuf dee dugg aljanna sans quran mënul nekk alquran mooy tors bi ñuy niital yoon wax naa ko sànq juma dinaa leen guddi gi yàlla taalal nit ñi tors bi guddi gi yàlla taalal nit ñi tors fekk nit ñaa ngi ci lëndëm ay ay at ay junni junni at ba kenn xamatul fooy teg sa tànk mi ngi mel ne tey jumaa ji bu nekkoon bu ñu nekkoon ci 4 heures du matin ñu fay courant bi mu lëndëm ñu sol ko ba mu fees delek nit tàngaay beeg lëndamaay beeg xat-xat yi yoo yeeg nangam dangam yeeg pocox pocox beeg takkaay beeg ñëpp ñu jékki-jékki rek benn lamp ne taf ci biir jumaa ji tàkk ku nekk ah ndeke yow laa dendal ku nekk gis nga da ngay xam fi nga nekk loolu guddi googu mooy guddi laylatul qadr ci la yàlla taal lamp torse bi mooy inna anzalnahu fi laylatin mubarak ci guddi googu la yàlla wàcc alquran pour mbir yi leer pour àdduna leer guddi gi dafa am importance ba nga xam ne alquran bi muy wàcc malaaka yi ndeysaan li ñuy nekk fu sell li ñuy nekk fu teey li ñuy nekk fu set li ñuy nekk fu féex li ñuy nekk fu neex ndax liy wàcc di leen bàyyi ñoom fa ñu nekk mënuñu ko muñ yàlla mu ne tanazzalul malaayika malaayika yi sax dañoo wàcc ànd ak alquran bi jibril sax da koo fekk si war ruuxu fiha moo ne yàlla mu ne salaamun hiya hatta matla'il fajr guddi gi jàmm rek moo ci nekk bu bët set salaamun hiya jàmm rek ci lañ nekk muy di ko làmbatu ci fukki fan yu mujj yi yal na yàlla may ñu màng ko mbokk jullit yi sunu borom ne bu leen téye jigéen di ko bunduxataal pour lor ko wala tumsikuhunna bu leen leen jàpp diraaran pour lor leen kenn ci yeen def loolu garde ko ci kër gi rek léegi màgget na amatul fu mu jëm ndeyam ak baayam dee nañ nga jël benn bant daaj ci saal bi interdit ko sax saal bi ne ko waa léegi xam nga lan la sa néeg rek nga am droit yema et puis bul duggati ci waañ bi dinañ la yekkal su bëccëgee rek ndeysaan ñu daal di ko yekkal ci mbool su ndaw dugal ko néegam ndeysaan mu mel ne xaj bu ñuy ber góor gu yées rek mooy def loolu soxnaam góor gu yées nit ku bon nit ku nar a dugg safara rek mooy toroxal jigéen yàlla nee na yéen a ngi def loolu li taatadu pour ngeen di jalgati ci kaw ndaw si li taatadu li tajaawazu xadd al ihsaani al isaa ila al isaati ngeen bàyyi li ngeen waroon def mooy lu rafet ngeen jëm ci lu bon ngeen di dépasser lu rafet li ngeen waroon def léegi mag la mënatul am doom bët yi wàññeeku na lex bi dugg na bëñ yi màbb na ah ween yi daanu na lu ci war mooy bu bul fa bul fàtte kóllëre bàyyi ko ci kër gi mu toog sax bokk nga bàyyi ko fa mu toog daraam du manqué waaw loolu mooy diini toppatoo ko feebaree nga faj ko parce que sa soxna la waaw soxna la sunu borom ne li taatadu bu leen jalgati ngalawaay bu leen def loolu di jalgati soxna yi wa man yafal zalika képp ku def loolu yàlla ne ah ñu ne ah mu ne faqad zalama nafsahu tooñ na boppam tooñoo kenn de waaw dafa ne ñi la ko mayoon ñoom ngay naqaral ñi la takkaloon sëy bi ñoom ngay métital wa man yafal zalika képp ku def loolu di naqaral jigéen di ko toroxal ak di ko souffrir loo faqad zalama nafsahu yow mi def loolu tooñ nga sa bopp xanaa xamu leen yàlla nee na wala tattaxisu bu leen jàpp aayatillaahi aaya yàlla yi huzuwan di ko jalgati yàlla nee na li ma leen wax bu leen ko jalgati sama luwaay yi ma leen wax bu leen ko jalgati li ay acte la ayat ayatillah huzuwan laiban bu leen fowe aaya yàlla yi fowe aaya yàlla mooy yàlla ne mbir mi nii la nga dem defe ko neneen jàpp jigéen bi di ko sonal waaw di ko mettital yàlla nee na bu leen def loolu bi adami iltizamikum bi tatbiqi ahkaamiha seen ñàkk a jël téere yàlla bi di ko atte woo mooy fowe téere yàlla te loolu dal Sénégal mooy du ñu atte woo l'islam du ñu atte woo téere yàlla boo waxee ñu ne Sénégal état laïque la état laïque ñu ne chrétiens yi ñoo fi tolloo chrétiens yi ñaata lañ te li doy waar sax mooy ndeysaan xoolal chrétiens yi sax ñoo ñu ëpp doole ci Sénégal d'accord ngeen wala d'accordu leen su ngeen d'accordul rek léegi ma indi ma indi ma indi preuve yi waaw dañuy gën a yàgg fii rek bu ngeen bëggee sax ñu yóbbu tey julli gi 10 heures ci guddi bu ngeen d'accordul ma indi preuve yi wane ne chrétiens yi ñoo ñu ëpp doole Sénégal ñun jullit yi d'accord ngeen aywa ñu dem ngeen d'accord rek ma indi ko léegi preuve yi ma indi lan mooy seen feet lu ngeen di feetu dimanche dimanche seen feet la wala feetu catholique la ñun ban mooy sunu feet vendredi 24 décembre 31 décembre ñaata fan la ñuy maye feet école 15 jours tabas korité ban calendrier ngeen def seen calendrier yéen ah ban calendrier ah calendrier chrétien doy na waaw lii doy na doy na doy na dañ fi yàgg doy na ñett yooyu doy na dañ fi yàgg rek buñ demee ci yu gën a graaw yi nag foofu moom ngeen xam ne kon ñun vraiment len nañ yàlla musal rek ñun kay te xoolal nee nañ ñun ak ñoom ñoo fi nekk dañoo war a tolloo loolu la ñu wax de mais tolloowunu seen feet la ñuy feetu ñun imposé ñu ko seen weer la ñu def suñu calendrier imposé ñu ko seen langue lañ ñuy jàngal imposé ñu ko wala ah man làkk ngeen di làkk moo tax benn benn booy mos na ñëw ci man asalaamaaleykum ustaz ma ñëw tey pour laaj la biir quoi ah loolu day jël loolu de lu baax la bismillah yenn saa yi lay gis ngay sol pantalon te pantalon yëfu tubaab la ma ne ko ah yaa ngi jàng nga làkk ak làkk tubaab de parce que yaa ngi jànge lycée Limaamu Laay yaa ngi làkk làkk tubaab maa sol tubéy ji nga làkk làkk bi ma ne ko ñun ñaar ñu yem kepp ay sol pantalon quoi ndeysaan te li ci gënoon garaaw nag mooy ku jigéen la ndeysaan ah jigéen la woon kon yu ci bëri fii dañ ñu ko imposé ñun moomuñu ko xam ngeen ne colonialiste yi bi ñuy dugg Sénégal dañ fi fekk l'islam fekk ñuy jàng alquran fekk sëriñ yor seen daara fekk ñu fekk fi ay kàng fóore jigéen ñu mokkal quran sax dañ ko fee fekk ñu jàpp sëriñ yi rey leen ñi ñu mën a rey ñu rey leen sumbu jun fii lañ leen doon reyee boo résister ñu rey la comme ni ñu jàppee Cheikh Ahmad Bamba sànni ji Gabon def Alaaji Malick résident surveillé def ñii fii jàpp et ñu bëri rey loolu ma mu nga lakk étude université yi lakk daara yi rey sëriñ sépp genn wàll gi waaw jël ponkal yi jàpp leen def leen ay jaam dem États-Unis jaay leen loolu mooy indi esclavage ak jigéen ñu rafet ñi gis ngeen ba pare imposer ñu seen làkk fal force tëral sax ay loi sept ans nga yóbbu xale bi école se- loolu mooy indi sept ans xam nga sept ans xale la kii kii bu ñu ko jëlee léegi sept ans ñu jox ko tubaab yi ñu yóbbu ko France mu def nekk fa ba am doctorat ñëw ku ko ne julil mu ne non père la ikraha fi diini nga ne ko loolu mooy lan mu ne diine kenn du ci forcer nit bàyyi ma ma nelaw ba naaj bi tàng bu ma amee temps julli bu ma amul temps ma xam ne tey aw ma jot ah nga naan ko en tant que Muhammad ma tuddee la yonent bi mu naan la après mais père xanaa xamuloo ne du affaire ay Muhammad quoi mais affaire ay affaire u affaire u jàng la quoi waaye feru maayen la quoi waaye booy moom boo amee doom ju mel noonu moom booy boo nga xam ne alku nga am na ci benn paa boo xam ne dafa fëgg doom ji jógee Europe rek ñëw tëdd di nelaw mu seetlu ko une semaine këng këng këng këng këng boo bi jóg mais père lan la mu ne ko yow du dox yow doo julli mu ne ko laa ikraha fi diin mu ne ko qu anfusakum wa ahliikum naaran qu anfusakum wa ahlikum naaran waaw ay jàng loolu la loolu moo koy réglé mbokk yi suñu borom ne bu leen jalgati aaya yàlla yi wala tattaxizu ayatillahi huzwan bu leen sayite bu leen ree bu leen fowe aaya yàlla yi Sénégal dañuy fowe yàlla ci weeru koor lañ nekk léeg-léeg nga génn rek ñaari mètre nga gis ay nit teg seen bana ne dañuy togg kafe ponkal magum jëmu góor léng waaw waaw kafe gi kafe gi yéen xaraa waru leen non non ñun duñu war lu tax ñun dañuy joxe ndog pourquoi non waruñ waruñ loolu mooy loolu mooy jalgati aaya yàlla kan moo la wax nga joxe ndog ku la ko wax yàlla yàlla dana yaa ayyuha allazina amanu kutiba alaykum siyam yàlla woor la la sant nga bàyyi li la yàlla sant ngay da ngay def leneen café goo xam boo ko joxee doo ci am benn tiyaaba amul tiyaaba parce que li la yàlla sant nga bàyyi beneen ñu ne dañoo war a aji màkka nga naan màkka jar sa dem ndax yonent bi bañ ko suulee ci bàmmeelam ñetti fan la fa def ñëw fii ci terminus bi toog fa def na fi juróom-ñaar fukki at leer gi nekk fi moom mi ñuuloon fee weexoon fee moo ñuul fii loolu jalgati alxuraan la te yàlla nee na wala tattaxisu ayatillahi huzwan fan la yàlla wax loolu ci alxuraan ni Muhammad moo moo ñëwaat fii Muhammad musta ñëw Sénégal li ngeen di bëgg ay kiraama yëpp nag bàyyi leen yonent bi nag musta ñëw Sénégal lu nekk nag mun ngeen koo wax waaye moom seen yonent bi moom mos a ñëw Sénégal mos fee ñëw mos fi ñëw de yonent bi ma nga Medina ñu suul ba mu faatoo Medina lañ ko denc ci néegu yaay Aïcha boo ba léegi nag yàlla waxuñu ne ñëw na fi bu fekkee ñëw na fi man de dinaa ko gëm ku may indil aaya alquran wala hadis ne ma yàlla nee na lamma dufina fi qabrihi jaahu jibril wa axrajahu min qabrihi wa ataahu fi Sénégal aaya boobu de ku ma koy indil léegi ma dem jébbalu ci bu ñu jalgati aaya yàlla yi jalgati aaya yàlla weesul yàlla mu ne jigéen na muur lépp awraam ñun ñu ne jigéen lépp lu mu def ba rafet dagan na te yàlla mu ne jigéen na muuru jalgati aaya yàlla weesul loolu nga bàyyi sa soxna ci biir kër gi muy def bopp neen di meesu di xeesal di paccal di dangal di xóotal di check down di di di di comme ni ngeen ko xamee waaw bu paccalee ba pare nag uh booy bi garaaw na mu ne la tuddee naa la ko nga génne 1000 francs ne ci maa ci teg bii ëllëg yowmal qiyaam yàlla dina am lu mu ci teg waaw day leen teg rek bu xale yi dangalee rek teg leen ci bu xale yi pàccalee teg leen yàlla moom li muy teg mu ngi ko denc waaw boo duggee ci bàmmeel bi yàlla ne la da ngaa tegoon te man tam damay teg allahu akbar nan yàlla aar wala tattaxisu bu leen jàpp aayaati sama aaya yu huzwan fo di ko jalgati di ko fowe waskuru fàttaliku leen ni'matallahi xéewalu yàlla aleykum ci yéen fàttaliku leen loolu fàttaliku leen xéewal yi leen yàlla defal mbokk yi yàlla daf ñoo sotti ay xéewal partout biir ak biti guddeeg yàlla li mu defal xéewal kenn mënu ko xam waskuru fàttaliku leen ni'matallahi xéewalu yàlla aleykum ci yéen yow ku góor kii fàttalikul xéewalu yàlla bi mu la def bi nga labatee soxna si amoon na juróom-ñaar yenn saa yi sax nga gis ku jóge Europe ñëw indi ay conteneeru xaalis ndaw si ne ko xoolal man sama waa ji ci néegu ñax bi laa bëgg bëgguma la wala wala ñaata ngay gis benn waay mu ne xoolal benn waay moo jógee kaaw laa la wax indi waay booy xoolal mais mère bi paa bi naan xale bi mais xale bi bañ non man lañ gëm foofu quoi foofu maa fa aag foofu maay gérer seen terme yi laa utilisé de ñaata yoon la ko góor di wax léegi nag kooku ñu may la ko yàlla ne waskuru ni'matallah fàttalikul xéewal yi ma la may keroog ba nga soxlaawee ñëpp soxla ndaw si bàyyi ñëpp ñëw si yow neema la woon xéewal la woon yàlla bàyyi bàyyi waa ji may la ko te xam nga ne yow bu doon dañu ne nañ leen compter rek nga naan man dañ maa bañ ñoom dañ ma bañ parce que xam nañ ne man aw ma moo tax ñu naan nañ nañ ma indil nangam naa indi nangam te loolu am na ci koo xam ne tey ci nit ñi buñ ko ko laajoon mu joxe ko kon waskuru fàttaliku leen ni'matallahi xéewalu yàlla aleykum ci yéen bi mu leen defal ba tey nga mën a takk ndaw si yóbbu ko sa kër fàttaliku loolu neema bi nag maa ko tënk foofu rek de parce que yàlla ci loolu lay wax waaye bu ñu doon xool fii ñu toog xéewal yu la yàlla defal kan moo mun a ya fay yàlla ba di li ngay xool benn journée benn bis benn bis laa wax boo xooloon ba ngoon benn bis bisu tey bii nga tàmbali huit heures ci suba ba dix heures nga bëgg a tëdd sangu ba bëgg a tëdd malaaka bi yor bët yi ñëw ne la bismillah nga ni lii na la mun a facture li nga yendoo xool nga ni ah mu ne mani li nga li ma wax dégg nga ko nga naan ah mu ne la li ma wax dégg nga ko li nga yendoo xool nga ni waaw ñu ne léegi désormais lu waa wàcc na da ngeen di fay ah ki yor nopp yi ñëw ki yor ngelaw li ñëw ki yor gémmiñ gi ki yor tànk yi yaakaar naa da ngay xëy suba au lieu nga wàcc lal bi nga nga lemu ñu ne nga ni grève grève grève de la faim kon yàlla may nanu de ah bu ñu xool leneen nag bu ñu dem xoola biir bi rek lekk mu rees rek yàlla may na la nga lekk mu rees te xoolal waxuñu lekk mu rees de yàlla dafa def sa biir bi ay produits yoo xam ne soo lekkee produits yi day toq ci ñam bi yàlla transformé ñam bi da nga yaakaar ne da ngeen lekk nii rek mu jeex non dafa am ay bagages yu yàlla def ay outils ay éléments ay machines ay appareils ndox wala ndox ci biir gis nga sànq li docteur bi doon wax ci télé bi nee na nit bu xëyee suba li mu war a njëkk a def mooy ndékki bu fekkee toog nga ay jour lekkoo dafa am sa biir bi dafay dégager ndox nee na ndox moomu day tàng jër soo lekkul dara fekku fa dara bu ko dégager ci ci ci ci biir bi ndox moomu day lakk éléments yi nekk ci biir bi su ko defee nga commencer sentir malaise am feebar yu mu lay jural yenn saa yi xet gu garaaw di génn si gémmiñ lu ko waral parce que ndox mi dafa ñëw fekk fa li mu waroon def soo demee ci xol nga fe boo rendee xar nga dem ci res nga fekk fa benn élément bu ñuy wax weextan mu kolewu ci loolu dafa am lu muy liggéey boo lekkee ba pare xoolal yan machine ñooy transformer lekk bi deret lii ñu yóbbu ko ci deret bi mu dem lii ñu yóbbu ko ci machine bi yu salte yi mu dem nga koy dem duus ndox mi ñu sàtti ko sànni ko ci yaram bi muy dem kan mooy def loolu dafa am benn waay bu nekk sa biir yaram di la defal loolu nga ñëw ci bët yi dafa am lu yàlla def ngay gis nopp yi ci àddina ci àddina nit dégg lay njëkk a def ak gis alaxira gis ngay njëkk a def moo tax ñu ne la tey wa basaruka al yawma hadid tey moom da ngay gis alaxira gis ngay njëkk a def adduna boo juddoo dégg ngay def moo tax yàlla ne wa jaala lakum as-sam'a wal absar lu tax loyer bokkul liir bi ci kër gi dégg lay njëkk a def ak gis néew bi ci biir bàmmeel gis lay njëkk a def bu malaaka yi ne jaraat di ñëw di ko laaj si mu séen leen ñuy ñëw gis ngay njëkk a def allahu akbar nanu yàlla aar sàmmono mbokk yi borom bi nee na waskuru fàttaliku leen ni amatallahi xéewalu yàlla aleykum ci yéen wama anzala ak la nga xam ne wàcce na ko aleykum ci yéen minal kitaabi ci téere bi fàttali ku leen xéewal yi leen yàlla may ak li mu wàcce ci yéen mu def ko ci alquran wal xikma ak sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam allahu akbar jàngaleen alquran ak sunna kon minal kitaabi alquran wal xikma ak sunna yonent bi nee na sunu borom ya'izukum bi mu ngi leen di waar ci lii alquran ak sunna yàllaa ngi leen ci waar kon ku bëgg a waaru ci alquran ak sunna ngay waaroo wattaqullaha moytu leen yàlla wa alamu xam leen anna allaha yàlla alimun ku xam la bi kulli shay'in ci lépp wattaqullaha ragal leen yàlla wattaqullaha moytu leen yàlla wa alamu ngeen yëg xam anna allaha naka buur boobu tudd yàlla alimun ku xam la bi kulli shay'in lépp yàlla lépp la xam est-ce que ñun ñi xam nañ lépp ah ku xam lépp anamu yenn saa nga dégg ci publicité rajo yi ñu naan sëñ diw mi xam lépp di seet nee na ku ñëw dina la wax sa avenir dina la wax dina la wax dina la wax ku bëgg wërsëg mu yokk sa ku bëgg yenn saa ñu ne ku bëgg sa fan gudd sax mu guddal ko kooku yàlla la kon kay léegi dañoo war a wax yàlla yàlla rek moo xam lépp waalamu anna allaha bi kulli shay'in alim yàlla lépp la xam chaque jour ma wax ne bu ñuy jàng alquran aaya yi buy jeex nañu bàyyi xel aaya yi fu muy jeexee aaya tey bi fu mu jeexee yàlla nee na maa xam lépp ki xam sa lépp ki xam sa lépp ndax kon boo xamee ne yàlla xam na lépp dina yell ci yow ngay def lu bon moom rek moo xam lépp ah yàlla sunu président bu bees bi ndax xam na luñ nekkee ñun ñëpp ah xam na ko ah sunu sëriñ yi yaakaar ndax xam na luñ nekkee. ñu ngi fii soxna yaa ngi kër ga ndax soxna yi xam nañ lu ñu nekkee ñun ñu ngi fii soxna yaa ngi kër ga ndax xam nañ ñoom lu ñu nekkee yàlla rek wa alamu xam leen anna allah yàlla alimun bi kulli shay wa alamu xam leen anna allah yàlla bi kulli shayin alim yàlla lépp la xam xam ngeen lu tax xam ngeen lu tax yàlla xam lépp mooy aji xam ji wallahu yaalamu wa antum la taalamuun yàlla xam yéen xamu leen xam ngeen lu tax ñun xamuñu wa ma utitum min al ilmi illa qalil yéen tuuti xam-xam ngeen am yàlla nag moom mooy xam-xam ndax lépp ci xam-xam la ko defare asamaan ci xam-xam la ko yàlla defaree lii di wundeelu ni da nga koy xool rek nga ni tubaab bi garaaw na nga xool lampe bi nga ni tubaab bee garaaw nga ñëw jël portable bi nga ni tubaab moo garaaw ma nekk France ah nga nekk fii ñuy wax nga xool télé bi ah yàlla nag mi bind ki defar loolu wala loolu nit defar ko ki sàkk ki sàkk loolu nag kon yàlla lépp lu mu defar ci xam-xam la ko defaree asamaan suuf géej te yàlla subhanahu wa taala xam-xam boobu mu am da ngay gis ci àdduna benn waay di jàng ba àddunaam jeex lan lay jàng géej ngeen tudde ko ah du ngeen koy tuddee ki jàng mbirum ndox kese wala ki jàng mbirum suuf kese ki jàng mbirum xeer kese ki jàng mbirum weñ kese même sax loolu dafa sori ci nit ci nit xoola nit nit kese da ngay gis wa docteur bi lu muy faj nopp nga ñëw ne ko docteur man sama biir bi mu ne non xanaa yow li bi ngay dugg fii gisoo liñ bind ci bunt bi nga ne ko luñ fi bind mu ne fii fii bëñ lañ fii faj bëñ li ngi liñ la wax bëñ wala ngeen tuddee kooku lan keneen ki bët ngeen tuddee ko kii yax kii der kii deret xoolal li gars yi di faj li ñuy bari bari bari gisoo ko boole lépp dañ ne moom de spécia- spécialiste la ci yax kese kese kese yax yax kese nga ñëw ndeysaan mu lay wax yax mooy lan yax lan la koy kon yàlla boroom xam-xam la allahu akbar moo tax mu ne maa ngi leen di yëgal ni yàlla bi kulli shay'in alim loolu kan ngeen ko gis na Macky Sall ñëw télé naan ma ni man mii lépp laa xam ci Sénégal kon nga dégg ku ko ne tout yàlla rek a xam lépp moom kese moo xam lépp allahu akbar moom moo mën lépp am na benn waaye dégg naa bu tuddoon badu bu doon théâtre ne maa mën lépp biñ ko jàppee ne ko ràpp ci kaso bi mu ne ndeke mënuma lépp ki mën lépp xam lépp mooy yàlla mbokk yi aaya bi balaa ñuy julli dinañ ci jëlee juróomi mbir la ñuy jëlee ci aaya bi bu ci njëkk mooy laa yaxillu daganul lil mu tallaqi ci ku fase an yarjia mu delloo imraatahu soxnaam min ajali an yadurra biha ngir lor ko non xam nga xale bi bi muy dem seen kër di fay daf ma bett mais amul problème dem leen ngeen indiliwaat ma ko rek fexe leen rek ba mu dellu siwaat ci kër gi dinaa ko def loo xam ne ba ba muy dee ah loolu du diine de loolu diine daf la ko tere delloo si jigéen ci kër gi ngir lor ko ngir jekk ko mën ko gaañ wala mën ko toroxal dañ la ko tere amoo ci benn droit yàlla daf la ko tere kenn du def loolu loolu mooy lu njëkk lu ñuy jëlee ci aaya yi wa yaslimuha ngir tooñ ko hatta tuxaaliuhu bi maalin am na ñoo xam ne dañuy def loolu ngir lan du ma la fase de du ma la fase fii ngay toog pour lan xam nga lu tax gars yi def loolu pour ndaw si xëy rek ne la waa léegi loom mayoon nga ni ko deux cent mille mu ne am fekk sëy ngeen quinze ans am ngeen sept gosses yenn saa yi sax seen doom yi takk nañ jabar seen doom yi sëy nañ nga ne da nga koy sonal pour mu delloo la li nga ko mayoon loolu nit du ko def ku nite du def loolu bëggatu la bàyyi jàmbur mu dem sëy bi yàllaa ko jeexal lu nekk am na fu muy yem sa bakkan bii sax am na fu muy yem sëy bi fii la ko yàlla yemale duroon ngëneel ngeen tas mais tas ñëw na acca bàyyi jàmbur mu dem bul ko lor loolu mooy lu njëkk lu ñuy jëlee ci aaya bi ñu doon jàng léegi ñaareel bi mbokk yi mooy xurmatul talaaxubu bi ahkaami sharia di fowe aaya yàlla yi dafa aram di fowe alxuraanu yàlla bi di ko fowe tey ci Sénégal li gën a rëy li gën a garaaw li ñuy def mooy fowe alxuraan suñuy théâtre da ngeen dégg théâtre kat yi di foye alquran di jàng ay aaya di ko yàq nit ñi di reetaan heure ndogu sax ñu ngi ni dañoo woor waaye léegi léegi bu ñu demee ñibbi cinq minutes des ci ndogu dix minutes ñu tegal ñu théâtre buy xas alquran nga dégg gars yi ñëpp di ree waa ji di jàng alquran di ko yàq wala ñu génne benn atte yàlla nit di ko yàq ci bëccëgu weer comme kucaa ni muy def kooku nga xam ne yàlla da koo rëbb di foy aaya yàlla yi allo ñu ne waaw damaa woor boo kii de eh, ma waaye ma jekki-jekki rek loolu mu ne loolu dara nekku ci loolu la yàlla wax yàlla dafa màgg pourtant discours président de la république nañ dem ñu saboté ko nañu xas président wala ñu xas kàddoom loi yi ñu tëral ci Sénégal nañ dem ñu xas ko nañ ko fooye léegi loi bi wàcc suñu kaw xoolal Ousmane Ngom ministère ba l'intérieur ba woon ci lu ci weer weer weer muy santaane gaa yi def ci weer boobu ñooñu mu doon sant ñoo ñëw fekk ko ci douche bu muy sangu génne ko monote ko sànni ko ci avion tëj ko ci kaso mu ne leen mais yéen du yéen laa doon sant démb ñu ne ko ah gis nga ci weeru yàlla la loi bi changé moom mi doon wax def leen ñuy def ci kawam yàlla ay àtteem kenn du ko jalgati te réew mi dara deltuloo ko ginnaaw lu dul di jalgati aaya yàlla yi léeg-léeg nga gis benn waay mus naa wax benn paa ñu toog ni ci mbooloo rek benn jigéen ñëw asalaamaaleykum di jàpp gaa yi loxo ba yegg si ci man ma ne ko asalaamaaleykum rek benn paa bu ma dellu ne waaye indi fii ah indi daa di xiiral loxo bi rek waaye dóor loxo ndax si waaye ne indi man ma jël ah ma ne ko yonent yàlla moo xam nee na képp ku jël sa loxo teg ko ci loxo jigéen joo takk sa loxo boobu dinañ ko ruur ci safara jahannama mu ne bu bii lakkee ma dese bii loolu jalgati aaya yàlla la wala ñu ne ko waaw xeesal lu ci yàlla wax mu ne bu maasee dagan loolu jalgati aaya yàlla la te loolu la gars yi def ci télé yi ak rajo yi loolu ji jalgati ñun lan moo ci suñu taxawaay dañuy ree rek ndeysaan du ma fàtte benn bis bi ñu nee benn waaye dafa def benn film woy ci benn benn téere sëriñ mu woy ko ci taalibe yi gàddu ay yet di wër waa ji alxuraan moo gën a yay ci loolu alxuraan bii ñuy way saa nga dégg sound bi tarang tang tang diw mu ne wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin dégg rek diw ayatul kursi yu allahu la ilaha dégg rek diw wala amul amul amul amul kan ci yéen moom musa mer yéen a ngi nii sax ma koy wax ngeen di ree kenn du mer bu ñuy jalgate aaya yàlla yi gars yi dañuy ree dañ leen arrêté tafsir bi ba suba asalaamaaleykum